Seneinfo International. chers abonnés de Seneinfo International et Seneinfo.net daal na jàmm si li la fës si xibaar yi tey euh, euh, lundi 11 décembre 2023. Euh, Sud Quotidien moom la ñuy commencé nee na jugement du contentieux lié aux fiches de parrainage de Sonko 2024 au tribunal d'instance hors classe de Dakar ce mardi donc comme ni ngeen ko xamee si xibaar yi audience bi nga xamante ne moom mooy. Ousmane Sonko soo leen koy amal fii nga xamante ne mooy tribunal bu Dakar boo xam ne Ousmane Sonko dañuy participer participer ces élections yi ou pas donc loolu journal bi ne l'audience de tous les risques donc ñu ñëwaat mu des rek si journal bi éclairage fi nga xam ne moom Ndella Sylla nekk directeur général bu cabinet d'expertise électorale euh, moom moo nekkoon invité euh, sur les familles donc def na si euh, waxtaan bu yaatu yaatu si li nga xamante ne nga am na suma fan nga moom mooy euh, si benn interview bu yaatu bi nga xam ne defal na ko ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck nee na euh, l'énigme dans silence idyllique donc invisible à effort ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck kaa yëpp ñu bëri ñu ngi posé wu ay question euh, si moom ba xam ndax moom lan moo tax lan waral moom noppi silence boobu lan moo ko waral l'observateur nag def na si gëstu bu yaatu yaatu nee na décryptage de la stratégie a silence à quelques mois de la présidentielle de la présidentielle Il travaille à élaborer son projet de société et bâtir une large coalition su si ko si journal bi la xamle donc ñu des rek si journal journal bi euh, moom euh, charge le ministre Moussa Baldé les hommes politiques influent les décisions pédagogiques c'est en ligne c'est donc ñu nga xam ne moom ne moom mooy SAES moom nee ne élèves yi étudiants ñu ngi koy def loolu danger la donc euh, fi ñu euh, euh, bi ñu des rek si l' observateur nee na dafa def benn enquête bu yaatu sur le trésor caché des collectionneurs de véhicules de véhicules vintage nee na les folles dépenses d' entretien et les de la location loolu la journal bi xëy xam ne te dans une. Libération dafa ñëw si rek affaire décret sur cage du crédit mutuel temps yëpp problème crédit mutuel bi. Euh, affaire cinq cent quarante quarante milliards milliards yooyu affaire cinq cent quarante millions yooyu ñu doon wax euh, ñoom la ñu dugal fële nga xam ne moom mooy crédit crédit mutuel ñu ne les incroyables ñu ne euh, libération moom mu ñëw si affaire boobu. les incroyables découvertes de l' enquête donc nee na de dossier frauduleux en mode fast track partage des fonds à euh, entente préalable entre les mises en cause qui, a, euh, qui savaient que Astou des traitements, des conclusions accablantes des, des conclusions accablantes des enquêteurs. donc loolu journal bi ñëw euh, fasal tey dans sa une lu des rek si journal bi ñu ñëw si immigration clandestine ki nga xam ne moom mooy monsieur monseigneur Benjamin Ndiaye ancien archevêque de Dakar moom nee na il n'est pas normal que nos jeunes se noient en mer en tentant de quitter le pays donc ki nga xam mooy ancien euh, moo ancien ancien archevêque de de Dakar euh, moom daal dama ngi déploré li nga xam ne mooy immigration clandestine bi nee euh, du yoon ndaw yi di dee si géej gi loolu la xamle si journal bi Libération. Vox Pop moom dafa ñëw ne weekend de galgal politique politique euh, nommé euh, Maître Moussa Diop le contrat d'exploitation de diamants les correspondances entre Aly Ngouille Ndoura euh, et Macky et ses donc loolu journal bi ñëw xam te xam dans sa une ñu ne si meeting du candidat de Benno Bokk Yaakaar en avenir en France ne les militants soutien de Benno Bokk Yaakaar relèvent le pari de la mobilisation si sukkandiku si journal. bi donc euh, ñu situation politique au Sénégal tamit journal la xam ne nee na conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO évoque les péripéties des cas Sonko et Sénat donc loolu la journal Vox Populi xam ne tey euh, dans saa yi. Euh, l'indépendant moom moom dafa ñëw rek ne ouverture du bal au conseil constitutionnel ñi nga xam ne yi ñu ngi leen di xaar ñu déposer de parrainage.

enseignement supérieur, 160 plus 160 côté universitaire, appel à les étudiants à regagner euh, le cadre. Donc euh, maintenant, ils ont signé une tribune pour dénoncer le modèle d'enseignement à distance et, éviter, et inviter euh, à reprendre leurs emplois du temps et à se présenter aux heures et jours euh, indiqués dans les salles et amphithéâtres où leurs enseignants sont programmés. Donc, kii bi nee na daal dañoo ñaaxal étudiants yi ñu delluwaat si classe yi parce que pour pour yi nga xam ne dañoo koy def étudiants yi donc euh, ñu ngi ñaax rek à ce que étudiants yi delluwaat euh, si euh, amphithéâtre yi pour mun a jàng. donc li la leen indi loon si lu gën a fes si xibaar yi tey lundi 11 décembre 2023 ñu ngi leen bu baax a baax si teewlu bi di leen ñaanal jàng.